mbirum faj xam na ni dafa sooxee ci diwaanu Ndar ndax tey ji ku gis mbooloo mi nga xam ne ñëw nañu tey fekk si nu fii nga xam ni askan wi ñu ngi jooy loolu fu nu fajoo moo tax sunu président sunu mentor le professeur Mary Teuw Niane daal ñuy ñaax ci li nga xam ne moom la ñuy dox ñu warkat wasaare ci biir commune Ndar mais ci commune département de Saint-Louis yëpp loolu nag buñ ko mënee c'est parce que dañu am ay kilifa yoo xam ni ñu ngi taxaw ànd ak ñun dinu jàppale ma koy ma ciy gërëm bu baax ki nga xam ne mooy sunu kilifa fii ñu taxaw muy la délégué de quartier sunu papa Isma Isma Saw ndaxte moom li nga xam ne moom mooy doxal fii ci Bango li nga xam ne mooy tax Bango di dox askan wi di ci seen bopp moom ci loolu lay dox kon mu ñu lu dul gërëm ko sant ko mais également li ñuy wax mooy. dañ fi fekk responsable boo xam ni politique MTN boo xam ni mësul daw mësul tàyyi heure bu MTN soxla moom day taxaw taxawu MTN di liggéeyal askan wi askan wi aussi jéppiwuñ ko ndax ñi ko wuy si ñëpp ak li mu fi yore ci base politique c'est parce que dafa liggéeyal askanam moo tax askan bi di ko delloo njukkal kooku nag mooy Ousseyn ñaan bi nga xam ni moom la ñu fekk si fii mu moome am na yeneen responsable yu nu fekk si ndaxte waa jàmm gën ñëw noonu ndax responsable Ndeye Khady gis naa ko fi mais également équipe bi nga xam ni moom la yor muy nag équipe boo xam ne yaa fusul équipe boo xam ni am nañu fulla am na nañu fayda ñi ngi liggéey équipe boobu tey ji moo tax Ousseye lu mu yëkkati mu sotti ma ci beral loxo nag jigéen ñi mooy les amazones de Mary Teuw Niane waaw ndaxte lii ma gis fii ci Kanda bu ngeen ko continuer ñu koy doxalee nii gëm naa ni tey ndar yëpp daanu kontaan ci MTN ndar yëpp daanu kontaan ci coalition Diomaye président bi nga xam ne tey am na benn coordonnateur Abdou Khadre mi ngi sama ginnaaw moom ñëw na taxawal fi coalition bi yëpp Bango feefu maritaw ñaan la feef naturel u maritaw ñaan la askan wi lu nu yàkkamti mooy heure bu maritaw ñu dégg ndaw wu maritaw rek bu nu déggee ndaw Mary Teuw na Bango li ñuy njëkk a def mooy fexe ba delloo njukkal professeur Mary Teuw Niane ndaxte ñoom dañu am reconnaissance ak gratitude envers ce leader li ñuy wax charismatique mais intègre jub woyof bëgg askanam kooku mooy Mary Teuw kon askan wi tey wan nañ ne encore une fois ñu ci ginnaawam di gërëm également koo xam ne mënuñu ko ñàkk gërëm ndax depuis démb mi ngi fi muy Amath Diallo Amath suba ak ngoon lu ñuy def day ñëw taxaw liggéey bañ nan ko ba buñ ko waxee mu ni man mëri taw du sama leader Ousmane Ndiaye mooy sama leader kooku kenn mënu ko fay depuis 9h mi ngi fii mi ngi taxaw bàyyiwul dara muy alalam muy coonam muy poosam muy waxam lépp dugal na ci loxoom kon Amath vraiment ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm sama xarit Pape demb ak ñi ma àndal. dama ci kontaan population bi kontaan ci ki ko sabab.

lii karti bi Marito fii la dëkk fii la juddoo fii la yaro fii la ay nitam nekk donc nit amul fu dul fa ay mbokkam nekk te xam na ko mu ngi koy jëfee donc man mënuma lu dul gërëm ñi mu àndal parce que soo gisee lii mu mun ko def am na ñu nekk ci gannaawam muy le président de la république et son premier ministre nañu leen jàppale ñu xam ni ñoo ngi dugg ci développement réew mi du gërëmu ma Bango rek damay gërëm waa Sénégal yëpp ndax lii senegal yëpp lañ ko defal. wér-gu-yaram nit soo amul wér-gu-yaram mënuloo tekki dara gis loo sànq maa ngi tër tër di bëgg daanu malgré mag la mais garab moo mooy faj yàlla fekk ko ci parce que yàlla dafa ne la fajul ma fekk la ci. donc lii dañ cee sant yàlla su may suñu yi suñu sabapee indi fii ñuy faj waa Bango wàcc ba Ndar parce que waa Bango rek nekkuñu fi tey. wa mandaringi ngi fi wa département bi ñu ngi fi ñu ngi faju kon diñ ci sante yalla sante ñi ko sabab Ousmane Ndiaye nag ñu kay gëreum gërëm di ko sant amuñu fayam parce que depuis bi ñu programmé li ba tay mi ngi fi jaabante di waxtaan ak suñu responsable Ousey Ñaan momi di jambar di gaynde nek ci ginaaw maritaw nek ci ginaaw Ousmane Ndiaye suñu coordinateur dem ba légui fu bâche nek fu chaise nek fu nit nekk ñi ngi lay woo pour nga ñëw assiste ndax ku ne xam na ni wér wérgu yaram fi mu toll nii si réew mi ñëpp a ko soxla rawatina nag ñu jëm si jamonoy nawet ñu jël lii boole ko ci vacances citoyennes bi nga xamante ni soxal na jeunes yëpp te tey ku fi ñëw xam ni fii nii tey ñëpp teew nañ bango tey kenn desul muy sud du nord di troisième âge di jeune. yi ñëpp ñëw na ku ñëw di nga consulter wu nu mu waré, ñu jox la garab jox la moustiquaire nga yobal. ndax ku ne xam ku ne moustiquaire ñu yo. Da fi ñu ni ñëpp ko soxla amul mak amul ndaw muy jigéenu wérul muy xalé buy namp, muy xalé bu fer ñëpp ñëw na. ku ñëw faju nga yobu nga garab yobu nga sa moustiquaire Ousmane Ndiaye nak moom amuñu fayam ñu ngi kay sante, di ko gërëm di ko tey li ñu gis ci nit fii daanaka gëj nañ ko gis ci Bango wala gëj nañ ko gis ci aéroport mun naa ne depuis euh, en 1983 bi Mary Teuw Niane di def fii euh, euh, meeting am boobu lañ ko gëj a gis tey mais ñoo ngi ciy gërëm ñëpp di ci gërëm le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ak son premier ministre Ousmane Sonko. Ousmane waaye Ousmane Sonko ak le professeur Mary Teuw bi nga xam ne moo initié affaire bi jaarle ko ci le coordinateur régional di Ousmane Ndiaye di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax ndax lii nekkul pour la première fois ci Saint-Louis di ko ci gërëm bu baax